jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen ngi ànd ak CCB ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd bi nga xamante ni yéen ngi koy ànd ak ñun di leen wax ngeen gën a abonné bu baax te xam ne seen mbégte lekk mooy sunu yitte ñu ngi nuyu bu baax kilifay diine yi kilifay aada yi sëriñu daara yi ak ñii nga xamante ni ñooy aar daara waa bu baax waa jamra ak ñii nga xamante ñooy aar jikko yi waa waa safinatu amaan ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax seen taxawaay si dëkk bi seetli boobu yi soxna bu ñu ngi gërëm mbokki bopp ya nekk bitim réew di leen ñaanal bu baax di soññaat gouvernement bi mu jàppale leen si seenu nekkin ba mu mën a ñoŋ waaye suñu mbokk yi nekk ci biir réew mi président Macky Sall na leen taxawu kenn ku nekk fa nga nekk di fa liggéeyee mu fekk la fa dooleel la bu baax baax loolu dina taxaw dina jàpp lool ci xëyum ndaw ñi. ñu ngi nuyu it suñu mbokk yi takk der yi kilifa ga nga xam ne ma nga fee sa feder bu ñu ngi koy jox nuyoob takk der yëpp ak saw ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax te di leen gërëm seen taxawaay ci réew mi. sooy bu nag émission bu mag bii di seen xalaat ni leen ko waxee woon rek dinañ ñëw jox askan wi kàddu waaye dinañ dalal fii nit waxtaan ak moom waaye ñu nit dinañ ñëw bu mbir amee ñu ñëw wax sa la nga xamante ni moo say sunu xalaat ak lañ ca gëm mën naa demee noonu mën naa ñàkk a demee noonu waaye lépp loo xamante ni ñun wax nañ ko lu ñu gëm lay doon te du am benn parparloo fii bu ñu fi toogee si CCB seen bu mag bii nga xamante ni Sénégal gépp a koy bàyyi xel bu ma fi toogee par parloo day jeex tàkk waaye wax loo xamante ni du dëgg wala lu ma leerul xalaatuma ko si sama àddina waaye ngeen ñaanal ma bu baax a baax a baax aar ma te yokkal ma xéewal bu baax a baax di gërëm yi sa Njóogu Mbeng ak Sohi bu Jóob si bitigu solution bii nga xamante ni ñoom ñoo may gunge si émission bu mag bii di seen xalaat te it ñu jàpp ci liggéey bu baax a baax a baax ñoom bitigu solution ndax xam ngeen ni altine da ngeen ma am incha allahu rabbi àllarba it da ngeen ma am waaye ajjuma da ngeen ma am ak boog dimanche yooyu yëpp da ngeen ma am fii si CCB ñu ànd ko ak yéen kon jëre ngeen jëf bitigu solution nag boo ñëwee à face wal fajri ma nga foofa waaye bala ngaa ñëw da ngay woote ba jot bañ wax ne la nii lay demee nga sol saw daal ñëw ndax bëgguñu kenn jóge fa nga nekk ñëw ba egsi te doo am li nga bëgg kon yi nga xamante ni mooy butigu solution seen mbégte rek mooy sunu yitte bëgg nañ képp koo xamante ni amee nga saafara joo xamante ni tëna faju boo ñëwee si ñun mu daal di faju moom bitigu solution mooy gunge si émission bu mag bii di seen xalaat kiñ si àndal tey jii nag spécial Tiwaawan lay doon si gàmmuk Serigne Moustapha Sigui xam ngeen ni bi gàmm gi jàllee am na si ñoo xamante ni demoon nañ fa di waa yeewi askan wi am na si it eh, ay discours yoo xamante ni dégg ngeen ko fa sa guddi dégg ngeen ko fi suba gi ak ki nga xamante ni mooy capitaine dégg ngeen ko fa waaye ki nga xamante ni xoj nañ ko fa Euh, ba ñii naan génn àdduna ñii ni génnut àdduna ñii ni hôpital la yeewoo ji ñii naan loolu lépp amu ca gaa yi yokk rek euh, xoj boobu ñu ko xojoon lan moo ko waraloon ak kooku ñu xojoon anamu loolu lépp incha allahu rabbi dinañ ci ànd ak euh, ki nga xamante ni mooy Cheikh Ahmed Tidiane nga xamante ni ma nga noonee jógee Tiwaawoon ma ngay doog a dugg biir këram ñu fas yéene waxtaan ak moom tey ji waxtaan waxtaanu yaatu ginnaaw bañ ànd jekk bitigu solution ba ñëw lay doon incha allahu rabbi son yi bu jóob nañ dem solution te ñëw mbokk yi jaaxle jeex na solution juddu na ci diggante réew yi ma leen di bëgg a tuddal seen boutique solution gën na leen a jege yéen ñi nekk ci biti réew waaw waaw déglul ma li ma la yéen ñi nga xam ni yéenay xaar boutique solution ci biti réew ci seen ñetti garab yi ngeen taamu fii ci solution hémorroïde bu tëw a wér ndoxum siti mu tëw a ak góor gu néew kàttan ci wàllu sëy bu dee ca Italie Milan bu dee ca Maroc Daxla bu dee ca Dubaï Daïra ngeen mën faa fekk produit yi boutique solution di jaay di nga mën a jot soxna ummi wootee appel normal boo ko jutul bàyyil ko message whatsapp bépp produit bu ñuy jaay fii ci boutique solution ci Sénégal man ngeen koo am ci réew yi ma leen tuddal bu dee ca Italie Milan bu dee ca Maroc Dakhla bu dee ca Dubai Daira da ngeen fa fekk produit boutique solution Alaaji Sanjoogu Mbeng bu Diop mi ñëw ngir régler situation yi yéen ñi doon jaaxle ci yónnee fii ci Sénégal yéen ñi doon jaaxle ci diggante GP yi mbokk yi mbaa fàttewu leen garab yi ñuy jaay soo ci bëggee am yu wóor yu leer naññ da ngay doxantu ba njàmbat hémorroïde bu mënta wér jeex na ndoxum siti mu mënta wér jeex na góor guy gaaw a yegg ci kaw lal jeex na ak seen boutique solution bu leen ko fàtte nag boutique bi xoojul jàmbul li saxaarul seetul su ngeen bëggee dégg dëgg daal fii rek ngeen di wéree waaw kay jërëjëf son bu Diop euh, ñu ngi lay ndokkeel bu baax di ndokkeel madame Diop di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ko wax ne ko kontaan nañ lool waaye madame Diop kon bitigu solution ngi noonu numéro baa ngi noonu yi mi ngi à face wal fajjari mbokk yi ngeen daw ñëw xéewal gu bëree bëri moo fay am si wàllum wér gi yaram ku baax ki maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Baye Assane Mesre. yaa ngi en direct CCB site internet bi nga xamante ni wër na àdduna bi yëpp si aw yiw Euh, mhm. ngay jokkoo ak Baye Assane Mesere mu baax mi te yaru waaye feggoo ak soxi bu jóob mi nekk si xarale gi ñu bàyyi la nga nuyoo ñu fas yéenee dugg ak yow ci waxtaan wi si kàttanu yàlla. maa ngi nuyu soxi bu jóob mu baax mi te man man man maa baax te man. aha yow moom. waaw. ok d'accord. maa ngi nuyu ñëpp di leen ziara. ngay fay bu baax. mbooleem mbokki internet yi bàyyi xel GCB. Mhm. ma jël ci nuyu bi le directeur Chouaïbou Diop Mm-hmm. wala le directeur Baye seen Mess la macha allah ak mbokk yi leen di bàyyi xel yëpp. ki ñuy waxal mooy kan. Euh, su ko samay bëti woom tàllal ko samay loxo xool ziyaare sama sang cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Al Maktoum. xafizahullah mm-hmm. wa ayyada wa raahu mm-hmm. ak mbokki àdduna yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel seen bu mag bi yëpp. kii di wax ak yen nag. mooy seen mbokk maam Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mm-hmm. maam Cheikh Ahmed Tidiane Diop. maam Cheikh mm-hmm. Ahmed Tidiane Diop euh, kañ nga jóge Tiwaawoon. man de maa ngi nii soog a yegg si matagul dix minutes yi amoo woon matagul dix minutes. maa ngi soog a yegg si de ci baaxul yàlla. waaw si baaxu yàlla kon de xam naa Tiwaawoon la fa am foofa nga xamante ni mooy woote bi Serigne Moustapha si woote woon dara ump la ca. Mm-hmm. moo woote woon foofu si kurs bu doon def foofu gàmm. gàmm euh, Seydil Hadji Malick moo woote. ah. Sëriñ Moustapha woote wut Seydil Xaaji Malick moo woote. Seydil Xaaji Malick fu mu wootee yow it. Seydil Xaaji Malick moo wax ne alaa azimu laylal wilaadati xisbatan. sa kursu ba wala idaa lam yakun naxwal xaraami odoolu. sa kursu ba. Seydil Xaaji Malick dafa ne. kaay leen ñu àndandoo màggal guddik yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. fii yow mi am yéene bi amuloo yéene def lu xaraam. Hmm. kaay ñu àndandoo ko. Hmm. loolu nag moo waral Serigne Moustapha si hmm. woote boobu noonu Seydil hmm. Hadji Malick maamam woote woon hmm. bi mu ci tollee moom itam di ko def ba fii ñu toll nii loolu yàlla dogal ba mu toll nii di ko defee foofu sa course ba mu ko defee ci champ course salle de course ba waaw bi ñu xëyee eh, dégg nga xibaar yi yaa ko déggal sa bopp ñu ni ki nga xamante ni mooy Serigne Moustapha Sy ñii nga xamante ni mooy yeewi askan yi daal biñ ñëwee dee na ignoré eh, xaw leen na daal beddi tuuti daal mel na lu bokkut ci ñoom ndax ñoom ñoo ne woon yeewi askan wi ñi nga xam ne ñoo waa piir bokk nañ ci ñoom mais daal Serigne Moustapha ni mu doxalee ak ñoom jàpp nañ ni hmm. sëñ Moustapha daal laale wut ak ñoom te jege wut ak ñoom daal dem na daal ba bàyyi leen ak euh, doom ja di capitaine hmm. loolu loo ñu ci leeralal jërëjëf Baye Assane xam nga sénégalais moom daf ci am ñoo xam ne dañu yor jikko joo xam ne lépp lu ñëw buñ ci amul xalaat bu rafet xalaat bu ñaaw rek la ñuy génne xam nga Serigne Moustapha baaxoowul sax di recevoir ay politiciens ci jouru gàmmu moom yéeneem ak yitteem mooy doomu aadama la yemale xàmmewul kii politicien la xàmmewul kii nit simple la wala lu mën a doon yitteem mooy doomu aadama na jag comme ni nga ko waxee nag yàllaa ngi dogal bésu gàmmu bi ñu xëyee teeru nañu ko ci këram ga ci ngoon gi itam coalition Yewwi Askan Wi ñëw nañ fa ku ñuy wax Aïda Mbodj itam ñëw na fa coalition Yewwi Askan Wi ñi ngi ci gën a miin muy Khalifa Sall Ousmane sonk ak El Hadj Ahmed Haydara ñoom ñett ñooñu daal gis naa leen ñi ñeneen ñi rek miinu ma leen. bi ñu ñëwee itam ka ànd ak mooy Cheikh Youm man ba bi ñuy génn ci buntu kër gi maa ngi taxaw noonu buñ ne Serigne Moustapha recevoir leen daf leen ignoré loola ñiy commentaire ñoo ko wax waaye Yewwi Askan Wi duñ ko wax ndax nit ki cher ci moom lool. muy doomam mu recevoir la ci biir kër gi nga xam ne fan la nekk ngir waajal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku kay wàccoon ak yow buñ ne doomam moo leen recevoir fan la leen recevoir ci biir kër gi Baye Xasan loolu ko am xel mu rafet tey xalaat xam ne bu leen joxul woon cër wala def leen ignorer kon di leen dalal ci biir kër gi jël taawi boppam doomi boppam cher ci moom lool muy sunu lépp mu recevoir leen kooka kat ku ci waxut lu rafet maandu ci moo gën. lii ci xam bàyyi sant. <laughs> waaw maam euh, dégg nañ si biir yi wax nga daan ni moom baaxoo wuta dalal politicien si gàmmu gi. Hmm. moom de xanaa moom de xanaa mi ngi politique de wala. bien sûr politicien la de. du politicien homme politique la. ah. ma ne du politicien homme politique la. ah homme politique mooy lan. waa xam nga politique moom. ba ci diine sax dafa am politique kenn ku ci nekk nag ak na ngay politiquer. Mhm. politique dëgg moo ko lal waaye li ñu miin fi ñu toll ci pénc mi. Mhm. mooy booy politique boo waxul dëgg doo am li nga doo maam bu fekkee ne fekk yaa ngi wax dëgg li nga bëgg pour nga am ko dafay jafe. Mhm. léegi nag Serigne Moustapha homme politique la. mais du politicien xëy na euh, pour ñu dugg ci domaine boobu xuus ci dina xaw a manqué tuuti ci minute li ñu bëgg a waxtaanee. mais boo déggee ma wax loolu. Hmm. mooy cérémonie officielle tey buñ ko bu ma ko mënoon tuddee cérémonie officielle ci gàmmu. Hmm. mooy bëccëgu ziar bi nga xam ne mi nga am ci champ de course. Hmm. waaye bisu gàmmu li ñu miin. sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy ñun sunu kilifa. bés ba nga xam ne yàgg na koo def daawu ko defee sax foofu ci kër gi. ma ngi ko daan defee fële ca biir ci waawoon dem ziar ji maman Sofia. sunu maam Sofia dem di way juróom bu jigéen. moo ngi ko daan defee biir kër ga nga xam ne bu ko defaan ba guddi gi. Mm-hmm. mu ñëw dakaar jël si góor gu tedd gi maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al mm-hmm. ba yàlla dogal nag mu koy def ci waxtu wi. Mm-hmm. kon l'essentiel ci gis jëfin ju rafet. mooy ñoom ñi nga xam ne mooy coalition Yewwi Askan Wi. ñun li ñu fekkee. te dégg aussi ñoom ñu wax ko. ñoom xam nga ñoom ba tey ji ci seen kàddu waxuñ ne Serigne Moustapha def leen ignoré. ñoom rafetlu nañu dalal gi mu leen dalal ndax doomam ju cher ci moom. Hmm. la jël mu dalal leen. waaw te ñoom bi ñuy génne ci kër gi man maa ngi taxaw. Hmm. ay kàddu yu rafet rek la ñu wax. Hmm. kii wax boo ko seetaanee xam ne amul benn gêne. ci ki nga xam ne moo leen recevoir di capitaine. bu fekkoon ne dañu gis ci moom benn gêne. wala nga gis ko benn gêne ci xalifa ah, wala Ousmane Sonko nga xam ne bi ñuy génn ñoom ñaar ñi ngi ànd di waxtaan. man maa ngi taxaw lépp sama kanam la du luñ ma nettali. ki doon def discours du début à la fin. Hmm. ba bi ñuy génn di jël seen oto fa la ma fekk. Hmm. kon nit ñi nañuy de xool lu rafet ñu di ko wax. Hmm. ba a xool lu ñaaw xam nga tey jii gàmm gi. ñenn ñaa ngi naan Serigne Moussa waxut ci politique waxut ci politique te am na ci ñoo xam ne bàyyi san tey da ngay gis kilifa diine wax ci politique. ku mel ni man taxaw di kilifa warut wax ci politique lu ci yoonam ci politique. te waxul ci politique ñu ne lu tax waxul ci politique. wala ñu naan guddi yonente bi ñu nekk fay waxtaane politique bàyyi yonente bi amul dara si gàmm ban ci ngay dem. Hmm. sëñ Moustapha nag moom nit la koo xam ne nag muy def yàlla moo koy def loo. Hmm. déggoon naa ko bés wax mu ne man li may def du nit ñi ñoo ma koy dicté yàlla ma koy dicté. Hmm. nga xam ne nag koy dicté la muy def. bu defee rek xamal ne la mu def dafa dëppook jamono. nit ñi nag la kenn mënul satisfaire ba mu jeex. am na solo maam l'essentiel yeewi askan wi doo leen dégg mukk ñu ne Serigne Moustapha daf leen ignoré. waaw mais yeewi askan woowu yi bu fekkee ne ñoom waxtaan nañoo ak Serigne Moustapha si mhm. bañ ni ñoo tëgg yeewi askan wi Serigne Moustapha Sy ak Ousmane Sonko ak Khalifa. Mhm. bañ ni ñoo ko tëgg léegi nag euh, ñoom Ousmane Sonko wër kilifay diine yi si gàmm gi fu ñu dem léegi xalifa général ba génn toog waxtaan ak ñoom. ñu mhm. dem ba nga xamante ni àgg nañ si Serigne Moustapha Sy mi nga xamante ñoom lañ tëggal coalition bi Serigne Moustapha Sy batale leen ki nga xamante ni mooy doomam te est-ce que mhm. kooku sax xamoon na mbirum politique wala xamoon na la taxaw ñu tëgg ak lañ fa war a waxtaaneek yooyu wala loolu indiwut benn kii xam nga bu fekkoon ne kenn ci Yewwi Askan Wi dafa génn ne rafetlu wuñ ñoom ñu ñàkk recevoir mhm. kon su boobaa nit ñi mën nañ caa débat wala wax ñu wax ndax ne ki nga xam ne moom la leen booleeg mu bokk ci biir coalition bi mooy Cheikh Youm Cheikh. te Cheikh Youm. Cheikh Youm. Cheikh Youm. Hmm. ma nga fa de Tidiane Sarr aussi ma nga fa te ñoom ñëpp ñooy responsable parti bi ñi nga xam ne. Hmm. jour ba nga xam ne ñu ngi def lancement wu coalition Yewwi Askan Wi. Hmm. ñoom ñoo fa nekkoon ñoo fa représenté woon kilifa gi. ñoom ñoo demoon. dem te même keroog ñoom Yewwi Askan bi ñuy ñëw. ñoom ñoo ànd. bi ñuy génne ñoo ànd génn. kon loolu ñun amul lenn luñ ciy wax lu dul rafetlu ko parce que la mu war a def def na ko jeex na. mais gars yi nee nañ ñoom waxuñu leer si bokk nañ bu baax wala bokkuñu de leerut. ñan ñoo bokkul bu baax. waa Pire. mais coalition Yewwi Askan Wi bu ko àdduna bi xamee ñu ngi ko xamee ci làmmiñu Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy. Hmm. xam nga Serigne Moustapha. Ah, daa mel ne moo ko njëkk a wax de si benn. Um, kii mais bi dama ne Baye San. Hmm. Serigne Moustapha xamul waxu ruq. Serigne Moustapha bu wax publiquement lay wax. Hmm. xam nga jotaay bi amoon ci tamxarit bi. Mm-hmm. ci la wax ne ñu ngi waxtaan pour def coalition. Mm-hmm. et pourtant boobu kenn nga dégg ci leader yi mu wax ko. kenn. pour wax la rek ne la moom xamul waxu ruq. Serigne mm-hmm. Sall looy wax ak moom xam ko. xamal li ngay wax ak moom waxal ak moom lu leer. moom la al moom la al amin waxoon mu ne principe am moom lii la. buy wax ci penc ma la koy waxee ñëpp dégg. moo tax ci Serigne Moussa la ñu xamee coalition Yewwi Askan Wi. kon keneen la ñuy wax naan dafa dugal bopp roo ci kii walla nangam sangam mais man de li ma gis ci ak doxalin. Hmm. ak taxawaay. Hmm. ah xëy na nag man du man maay maay chargé de communication bu wàllu pur. Hmm. waaye li nga ma laaj rek moo tax ma ma dugal ci loolu. xëy na ci am na ci côté yoo xam ne moom boo bëggee lu gën a leer. boo jegee waa waa responsable yi ñoom dinañ la jox lu gën a leer waaye daal ci gàmmu gi daal loolu laa ci mën a wax baas. loolu nga si mën a wax si mbirum yeewu askan wi ak yooyu ñu delluwaat. si si si si sëriñ bi. si gi ki nga xamante ni mooy capitaine doomam bi bi mu ko joxee kàddu wax na daal bañ tuur xéewal ak yooyu yëpp euh, ak it euh, mën naa daa samp gi nga xamante ni samp na ko doom ji. maam dénk na askan wi ci balaa ngay ñëw ci bëccëgu gàmm gi bul tëb guddi gàmm. waaw. xam nga gàmm guddi gàmm gi moo jiitu bëccëg bi. waaw. da nga may laaj ci guddi gàmm gi ba pare soog ma laaj ci bëccëg bi. ati léegi da nga ñëw si guddi gi boo ñëwee wax bëccëg gi lu ko sabab kon bëccëg gi dafa mel ne saafonte la. ma laaj laaj léegi loo may laaj ci guddi gàmmu gi. guddi gàmmu gi aco la nga gisoon sa sa sa bërëb ba rek. li ma fa gisoon la ma fa dégg. la nga fa dégg la nga fa gis ak discours ya fa am wala boog waxtaan wa. ok par rapport ak yeneen waxtaan yi. bàyyi san hmm? damay bañ nit ñi euh, ak wu rek di laaj ci wàllu politique ci gàmmu. Hmm. war nañoo laaj nit ki demoon gàmmu. Hmm. man su ma demee gàmmu ba ñëw. nit ne ma maam Cheikh seen gàmmu ga neex na xam nga la lay tiitaroo man hmm. bi ma toogee ci bërëb ba hmm. lan laa jàngee ci kilifa gi li doon wax hmm. ndax dew moon ngir wër ay dal damaa demoon ngir rooti yiw gàmmu gi nag li ci wàccee ci enseignement war nañu jëlaat enseignement bi di ko dundaat bañ a topp rek wàllu politique bi gàmmu gi nag eh, Cheikh Mouhamadul Moustapha lim ci jàngale dafa bari mu ngi commencé ci diggante Serigne Babacar ak ak Cheikh Al hmm. wax ne ñoom li ñu am seen cër dañ ko indaale am na yum ci indi yu baree bari bu ñu dégg delloo foofu daañu ko dégg hmm. ndax benn baat kilifa mën na ko wax waaye boo ko décortiquer jëriñ ci jëriñoo ci sa dund àdduna ak àllaxira hmm. am na itam lu mu indi ci moom ci jëmmi boppam ci ijaaza bi nga xamante ni maam Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al jox na ko ko. Mm. am na lu mu ci indi ci guddi gi waaye am na lu mu ci indi ci bëccëg bi. Mm-hmm. ndax ñoom fa ñu bokkee du fii. Mm-hmm. démb la woon te seen ijaazaat yooyu ñuy joxe wante nag. Mm-hmm. nekkul loo xam ne tey la dafa jokkoo fii dem ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. salaasilun siixat min safa i zabarjadin ila sayidil axlaaqi yowma tisaalihi mu wax itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla xëy na ko jox lépp ndax ci alam nashrah laka sadrak yàlla xëy na ko jox lépp wa rafa'na wa rafa'na wa rafa'na yëkkati na ko lépp wa rafa'na laka euh, zikrak mm-hmm. indi na itam yonent bi li mu am dafa daj coono mm-hmm. nangoo fay prix bi ndax bàyyi sa am na foo xam ne boo fa bëggee yegg mm-hmm. boo nanguwul a ñaq boo nanguwul a fay prix bi doo ca jot Mm. yonent bi sonal nañ ko ba bés dem na taayif mm. ba waa taayif ak lam fa daj yëpp ñu mujj di ko sànni ay xeer waaye mu ne ah yàlla ñii dañoo xamul jéggal leen amaana bés dana ñëw mm-hmm. la war a leer yëpp dina leer mm. waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la def noonu la def ba yàlla yegg ak moom fa mu yegg ak moom boo ko defee itam eh, li wàccee ci gàmm gi bokk na ci sax bay bàyyiloo xel jigéen ñi seen wàllu colin mm-hmm. wax ne sax jigéen li seytaane gën a bëgg ci moom mooy fexe ba jël benn baaraamam bu sànqalañ bi teg ko ci jumbu xam hmm. te bis boo ko ci defee dootul dootul dootul jur lu barkeel hmm. foofu lancé na ci benn message jigéen ñi ci seen wàllu colin ñu gën ko bàyyi xel macha waaye lancé na leen message itam ñu fexe am kilifa ndax nit boo amee kilifa di nga xam fan ngay teg waaye kilifa gu mat kilifa hmm. loolu nag xëy xam ne moo ca ballee am na solo pour nit ñi mën a ci root ci enseignement bi wàccee ci guddi gàmmu mhm. boo ko defee loolu daal laa bëggoon wax ci guddi gi rek am na solo xam naa ni xam naa ni pour nit di dellu ci xam naa ni allah bëgg naa boo amee temps rek nga ñëw toog ñu jàkkaarloo man ak yow <laughs> bu ko defee ñu jàkkaarloo si bët xoolante waxtaan bu baax hmm. a baax ci lu demee noonu ndax xam naa question yi bari na te li si li mm. bëri na li ma askan wi yóbbante woon it bëri na ginnaaw euh, temps baa ngi daw jëm si jeex xam naa ne si mm-hmm. bëccëg gi dinañ si dikkaat beneen yoon mais si mm-hmm. dañoo gis euh, ay images yoo xamante ni ak ak yoo xamante ni mi ngi wër démb ba mm-hmm. léegi Sénégal yu bëree bëree bëri jaaxle si vidéo yooyu nga xamante ni mi ngi wër wala boog vidéo bi nga xam ne mi ngi wër muy euh, soxna soo xamante ni mi ngi yàggaayu benn waay dox ko ginnaaw xoj ko bi mu ko mhm. xojee nag ba mu daanu am ñu jàpp ni faatu na am ñu jàpp ni hôpital la yeewoo am ñu jàpp ni dafa xëm am ñu jàpp ni dara jotu ko euh, te yow yaa nga fa woon mooy soxna soosu jot doxe ginnaaw xoj ko ba mu mhm. tëdd nga gis si mhm. reporté bi benn waaye nee na Serigne Moustapha Sy saa bu yëkk yëkkatee loxo bi rek xale yi daanu di xëm ndekete xale yi dañ leen doon xoj ñuy daanu di xëm euh, noonu la demee wala demeewul noonu ak lan moo ci am si xoj yooyu ñu doon xoj xale yi déedéet bàyyasan man Sénégal dama bëgg nit boo gisee dara te nga laaj ndax nit a ngi commentaire loo xam ne xamu ca dara xam nga bisu teeru bi ndeysaan bi ñu xëy ñu ñëpp dañu ñëw toog waaye dafa am koo xam ne bu ne tël rek nga nga teqalikoo ak sa sago foofu nag ci bërëb ba ña fa nekkoon di ay agence yoo xam ne ni ay agence daayira bi dafa bari ñii ñi ngi yëngu ci wàllu santé ñii ñi ngi yëngu ci wàllu organisation ñii ñu ngi yëngu ci wàllu sécurité ñii itam ci wàllu équipier naka la ñuy fexe ba nit ñu toog toog bu jekk waaye quelque que soit alpha la fa nekk lim bare bare bare ci wàllu organisation dafa am koo xam ne bu la tëll kenn dootul mën a téye sa bopp léegi nag Serigne Moustapha bi yàlla dogalee ñu koy séentu ba muy ba mu ba ñu séen ko ca kaw terrasse ba mm-hmm. sécurité bi taxawoon pour téye nit ñi sax mënatuñ ko mm-hmm. am na ci ñoo xamante ni ay góor ak ay jigéen dañuy daanu ndax mënutuñ téye seen bopp loolu leneen la du ñoom. am na ay góor am na ay jigéen mais ñooñu bu ñuy daanu ñan ñoo leen ñan ñoo leen war a taxaw ba duñu gaañu. ñii sécurité bi dañuy dem ba dañ ciy bokk. organisateurs yi dañuy dem ba dañ ciy bokk. ndax élément santé yi mënuñu tenir ñëpp. ki nga xam ne nag moment boobu parce que loolu du sama du du sama domaine man. mais ki nga xam ne élément santé la kii fi mu toll nii am na ci ñoo xam ne buñ ko buñ ko bàyyee benn façon bi mën na loru euh, clé ak plan ya muy def ba tenir kooka ba du lor boppam kooka moom moo ko xam hmm. mais du loo xamante ni dafa xoj xam nga benn nit ñi naan xoolal kii dañ koo xoj ma nga eh, yeewu hôpital famille nañ ko ba jàmba fekk na yow kii dafa ñëw gàmmu si wuy ma waxal waaw boo xoolee vidéo bi soxna si moom mi ngi nekk tranquille na si si gis-gis déedéet mais waa ji da koo xeelu di ko xeelu ba xaw ko wetu rek daal di koy ne ko katim bés. ba mu tëdd ba mu tëdd. bàyyi sax waaw ñaari loxo la ko botte bul ne mi ngi mi ngi tranquille mais si gis-gis laa si gis-gis. attends attends attends attends bàyyi sax waaw bëgg ñu wax lu leer te man. su ma moo tax ma lay wax si liñ gis ñun. xale bi dafa taxaw di yàggaayu mu ñëw dox ginnaaw rek kat yi bés ba mu tëdd mais est ce bu dee xam nga nit est ce que kooka nekk na bi mu taxawee. est ce que dafa taxaw simple lii rek taxaw danañ yàgg très sincèrement rek comme dañuy waxtaan. waaw est-ce que da nga gis mu taxaw rek comme Baye Assane mu taxaw nii rek di wax téléphone wala Baye Assane mu taxaw ku ko xool xam ne nit a taxaw. yow boo xoolee kooku xam ne kooku ki taxaw nekkatu fa. waaw looloo ñu jaaxal nag lim ko def ñu ne ñuy ñii jaa xanaa kii ab saay saay bu si rax la wala dul gis kilifaam teqali ko ak sagoom mais noonu noonu ngeen di noonu ngeen di téye yéen bi taxaw dafa taxaw dafa taxaw ngir sauver ko mais nag baatu xoj bi nit ñi di utiliser moo ñaaw léegi nu mu ko def yow nu mu ko def. mais defu ko lu dul lu dul sauvé ko. noonu la ko nu mu ko sawee bu mu ko sawee nu mu ko sawee. est-ce que est-ce que yow bi mu yegg suuf fekk na la fa. waaw mais gis nañ ko fekk na ma fa. gis nañ ko ni mu ko xojee nii ba mu tëddee kay. <laughs> ah man kay man ah gisoo ko. déedéet. yéen noonu ngeen di téye ko daanu. bu la yéen noonu ngeen di téye ko daanu. lu may wax. xam nga yow wóor na la bi ngay nekkee daara. Ah. des fois daan ko gis ku daanu yiisi koo xam ne doo ñëw rek fàtte ko mu daanu. mais ñun dañ koy wër ndomba da ngay daaw wër ndomba takk buddi dóor si suuf. waa waa mais xoj moom na nga ni en tant que élément élément élément de hmm. xam na nit bu tollee fenn fii yan plan la mën a def ba maîtriser ko. Hmm. yow da ngay jàpp ne xooj la mais du xoj fa muy jaar ba maîtriser ko moom ba du loru. Hmm. kooka moom moo ko xam domaine am la. am na solo sang bi. <laughs> kontaan nañ lool xam naa nga jàpp. bis nga ñëw ñu toog jàkkaarloo maa ngi ciy wax lu ne. man de maa ngi gis nit ñi ñu ngi ciy wax lu ne mais dafa am koo xam ne keppaaram. Mhm. lu dut yiw du fa am. bi ci topp mooy loola fañ ko doon defee ndànd foy foy la. Mhm. ndand bu ma ne ndànd foy foy boo xamante ne yaatu na ba nga xamante ni nit ñëpp a ngi tegante bët. Mhm. foo xamante ni tey ñun ñi fa ñëw ñëpp leer ak yiw moo ñu fa tax a ñëw doon root si. am na solo. am na ci loo xamante ni lu ñaaw du fa am. Hmm. ndax kilifa ga ñu fa yóbbu yare woonu loolu. am na solo kontaan nañu lool bu ko defee kooku daf ko doon def ngir da doon dafa doon fexe ba tenir nit ki. Hmm. ba du loru. ndax foofu boo ñëwoon yaa gis nit ñi daanu ñu ngi leen di jàpp di leen yóbbu santé. Hmm. du loo xamante ni lu ñu leen kii la wala dara mais dafa am koo xamante ni boo ko xasee gis mu am fu mu yegg ci yaw fa ngay daanoo wala fa ngay réagir sax doo ko tey. kontaan leer na nañ ñi ngi lay sant di la gërëm. ah xam naa ne waxtu yu jot na. Mhm. waaye sàng dafa am foo duggoon. mooy mhm. la nañ jiital ci guddi gi ba noppi muy ci sunu capitaine. capitaine bi da ñëw toog capitaine bi dafa am question yu ma la si bëgg laaj ay waxtaan yu ñu war a def si moom nga ñëw toog ma toog ñu waxtaan si capitaine bi. waa nga may ma ma ziyaar ko ba noppi. ah ziyaaral waaw. maa ngi koy ziyaara. Mhm. di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla mottali yéeneem ci moom. amiin amiin amiin mottali yéene kilifa gi ci moom. amiin taxaw ko zahiran wa batinan. incha allah. amiin ah bu ko defee nag. Hmm. leneen leneen la la ca aju. bis bi hmm. yàlla doogalee ñu toog. incha allah luñ ci xam daanu ko wax. bu soobee yàlla def dëgg-dëgg njaboot incha allah. cant ak ngërëm ñeel na la ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jëfal maa ngi lay jëfal di jaar tam itam bu Diop. moom sama wëllëre la démb. ndeysaan tey soog a ñëw. jërëjëf kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yii yéeneem yàlla na ko ko yàlla mottali. allahumma amin ndax ndongo daal yëpp nga koy sagoo macha allah. ndeysaan jërëjëf. salaamaaleykum waaw wax ko mu bàyyi euh, bàyyi kii nag sunu ministre bi ministre di l' bi. kuy ministre di l' intérieur. ministre de l' intérieur bi mu toppee Mbora mu dem Ka Kaolack. tarifa yi ba it sawaay topp ko Mbora mu dem Tiwaawan sawaay topp ko Mbora na ko bàyyi. kan moo ko topp Mbora. son yi bu déet bu fekkee def na lu baax rek du ko topp mboor waaye bu dee bu jalgatee mu topp. xam nga da na bàyyi jàmbur bi. ma ne xam nga champs yi xam nga champs bu jóg. damaa dégg dama dégg benn bés am ko ko seedal rafet. mu ne mu ne champs yi mën nga nekk moom di liggéey nii. waaw bés bu jotee boo wàccee yoon it buy dal sa kaw def émission yi. waaw dina ko def. soo xal la ay ku ñëwaat xam ne principe moo la booleeg moom. Ah, loolu am na solo damay dégg. maa am ma problème nit di man du xool ne maam Cheikh mi def nañ ay nangamiat. waaw principe bi la dëgg jëm la war a wax ne la ko wax. Ah. su paree nag booy ànd ak moom nga ànd ak moom boo àndul ak moom nga xamante ne yaa dem ak sa jib sa jiblu bopp rek. wallaay ndeysaan loolu de nit bu la yàlla dénkee kàddu ci mim réew. Mhm. nga gis nit même bu dee kilifa la te na muy doxalee du noona mhm. boo ca waxul complice nga. ndeysaan am na solo. ñu ngi ko naan ilal amaam rek. jërëjëf ñu ndongo daara yaa ngi koy sagoo. ñu ngi lay sant baax di la gërëm. jërëjëf yow itam nga yokk góorgóorlu. incha allah incha allah. te dégg naa am na ñu lay wër nag dégg waaw dinaa tase ak ñoom bu neexee yàlla fu mu nekk nii moom macha <laughs> allah ku ma wërit jàmm rek bu soobee yàlla Moussa Iran Ndaw incha allah dina ko dégg <laughs> mi ngi noonu ñu ngi koy gërëm bu baax a baax Cheikh Ahmed Tidiane eh, di ko ndokkeel waxtaan wi am na solo di ko gërëm bu baax a baax di gërëm soxna bu Diop di ko wax ne ko mu bàyyi ministre de l'intérieur gis naa nag ministre bi am ñu bëree bëri bëri ñu naan ministre bi lim tari ministre bi lim tari waaye lim tari la ngay wax doo gis kenn gàgganti ko du nii la man daal lool laa gëm si koy gàgganti du nii nii la pour ëllëg waaye di dal si kawam noonu rek di dem looloo dangay ngay xaw a ree ba tas ministre bi bu dematee may wax français wala mu wax li mu xam rek daal di daal di bàyyi noonu ñi ngi sant ñëpp di gërëm di gërëm baax alaaji saa Ndiogu Mbeng ak bitigu solution bi nga xamante ni wax dëgg yàlla am na ñu solution jërë ngeen jëf ba suba incha allah.